élection 2021 yi di ñëw euh, mën nañoo xaar euh, Sidi Fall président mouvement Anteew suñu gox mu nekk candidat si élection locale lu wér 2021 bu soobee rabbi suñu président siidi Fall nekkul candidat si élection locale dina fa nekk conseil bu soobee yàlla te dina am incha allahu rabbi ñëw si actualité politique bi euh, gis nga ko biir réew mi euh, tey euh, nga dégg ñu defaat beneen ministre beneen beneen beneen beneen gouvernement bu bees boo xam si ni tey am na coppeeku yu bëri yoo xam si ni am na si. bëri ci yoo xam ne am na ay surprise yu mag a mag yow en tant que jeune en tant que responsable ah jiite prés mouvement ànd teew suñu gox naka nga jàngatee lool sa sa bi nga gisee loolu. waaw loolu moom nu ma ko gisee waxoon naa ko barki démb suma benn collecte lii service. ma ne ko man rafetlu naa idi dem dem bi idi dem mun naa ah, ma ne ko rafetlu naa ko mais ñaalu naa post ba mu nekk parce que boobu moom moo ko ŋàññi woon mais sa dëkk nag nekk si guuta nga jug dem ne yow askan bi moo la yor tax nga daal di dem teewal ji leen fa loolu ma dama ko rafetlu mais ama post ba ñu ko teg mu jël ko te moom moo fi toogoon wax ne bu ñu fa tegee mii mi mu ne loolu yàq xaalis la te ñuy teg ko ko mu jël ko man foofu laa ñaawlu foofu moom ñaawlu naa ko complètement bu loolu jàllee tamit muy ñuy jëlaat ma gisaat fan barki Demba Ndiaye ñu jëliwaat ay ñoom Farba Senghor ay ñoom ne dëgg naa Malick Gakou su ma jumut ak PDS daal moo ñëwaat loolu tam li may wax saa su nekk rek li fi Ablaye Wade waxoon moo ci ne li mu ne woon libéraux yi dinañ fi yoraat réew mi pile de cinquante ans nañ xam ne ñu ngi si tànk yooyu te gëm naa ne loolu fi nar nekk nag parce que 2024 bañ jëm bu soobee rab bi fii laa la waxee bu Idu ñëwul taxaw gëm naa ne Karim dina taxaw 2024 bu Idu taxawul nekk président Macky dooleel ko Karim dina ñëw doon président te mag Macky moom lay àndal te yàlla ñu fi dégg bàyyi ba 2024 nga xool bu soobee yàlla. nga wax eh, eh, Idriss Seck président Idriss Seck que nii eh, dugg gi mu dugg si gouvernement bi ñaawlu woo ko lu rafet loo loo loo loo rafetlu la mais poste bi mu yor. mais est-ce que bi muy wax naan poste bi baaxul est-ce que nekkul woon ne politique euh, comme nekk ak opposition bi nga xam ne si foofu la nekk opposition bi nekk est-ce que nekkul loo moo tax rek mu doon ngaañu poste lu may wax chaque jour rek moo ne gis nga politicien politicien moo fi war jeex gis doomu aadama bi nu mu metti metti rek deeweel ak sa te soo taxee nga ne carrément poste bi yàqatu xaalis la war nga ko mën a baax. yaa taxaw nga ne poste bi yàqatu xaalis la kon yaakaar naa ne waroo ko mën a def da ko war a mën a teggi teggi nale man loolu la foofu laa ne carrément ñaawlu naa ko ñaawlu naa ko te ba suba ba ginnaaw suba dama koy ñaawlu bu jëlaatoon leneen su guur gi bu def premier ministre jox ko ànd naa bu ñu jëlaatoon leneen tam jox ko ànd naa ndax boobu yëkkatul woon kàddu yi mais comme yëkkatul woon na ne carrément lii dañ ko fa a indi ndax te amul fi benn sens amul solo amul dara tey mu tëbaat ñu jox ko mu tee ko da nga koy ñaawlu si loolu laa ko ñaawloo Euh, gis nga ne ak fi réew mi toll nii euh, Idrissa Seck euh, war na ci mën a indi benn contribution boo xam si ne réew mi dina génn si guute gi nga xam ne si la nekk. dégguma. comme fi réew mi toll nii moom mu ne Sénégal bu ko soxlaa day ñëw parce que réew mi mi ngi ci ay jafe-jafe est-ce gis jàpp nga ne dugg bu mu dugg si gouvernement bi war na mën a apporter le président Macky Sall lu bëri. waaw waaw Idi Idi moom lu may wax rek nit ki moom lii olof dox naan ñoom loo ko bañ bañ di nga seedeel mën a dawam moo nekk si Idi. idi loo ko mën a bañ bañ xam nga ne borom bopp la loolu moom alaa kulli xaal yàlla ko may comme yàllaa ko cëree nag dañ koy nangu bu réew mi nekkee si guuta am nañu yaakaar si moom ne bu ñëwee dina si gin dinañ si guuta gi ñu nekk dañu si mën a jëlee bu si jëlewul à cent pour cent tamit dañuy dindil cinquante pour cent yi am naa yaakaar boobu la si moom xaw ma nag mu ñëwee neneen mais man am naa yaakaar boobu si moom du sama leader nag du sama dara mais dama gis lu moom si lu naaj rek moo tax ma wax du la leen bi actuellement nii ku si mel ñoom Ousmane Sonko ak bëri na ñi nga xam si ay ñoom Guy Marius Sagna bëri na yaa waa yaanaa maari euh, ak yu noonu euh, ak ñoo lànk ñëpp ñi ngi wax ni réew mi actuellement dañoo nekk ci euh, di ko diil di ko di ko di ko pàccoo te dégg naa sa biir wax sànq ngay wax ni ñi ngi togg loo xam si ni libéraux yi boo moytu 2024 Idi day nekk président wala ila Karim wadd est-ce que kon nekkul da ngay dëggal li nga xam si ni moom la moom la opposition ba waaw loolu moom loolu moom dama koy dëggal moom loolu moom dama koy dëggal bu wér te Macky moom su ma jumut 2012 xaw ma 2011 avant muy falu dafa toogoon mu wax wax boo xam ne dama ko téye ba léegi muy àdduna potu ndaa la da naan jox sa moroom naan daane góor gi dafa war a mun a dem jox keneen mais si gis-gis gàtt wax bi dégg la laaj mais àdduna potu la ngay naan jox sa moroom naan kon day mel ne da nga naan kii lekk na dem na dama war a mun a ñëw lekk keneen ñëw lekkaat ñun lu defar réew moom moo ñuy intérêt mais ñoom li fi nekkoon 1960 ba léegi rek naa jógu fi ñi ñooy falu rek ñii di semé rek ñii di falu rek ñii di semé moo fi nekk ba tey pàccoo boobu ñu wax noonu dama koy dëggal bu wér ndax tànk ñu gis ñëpp tànk pacco dong la parce que leer na la Macky su jëlee Idy indi ko si wetam jëli ji Karim indi ko si wetam tey ji bu wàccoon kenn du jéem a tuumaal Alioune Sall lenn kenn topp Alioune Sall si dara comme ni ñu defoon Karim yaakaar moo ñu def ko si Alioune Sall te nit ñaa ngi naan suñu ñaata la lekk ay mi yàlla tëdd lekk na am lekk ko yàllaa xam mais tey ji su wàccoon ñoo ñu toog si nguur gi du ñoom ñoo ñoo koy condamné moo tax mu teg plan bi mu teg nii waaw muy pàccoo boobu. noo nga ko gisee jàpp ne anti plan la boo xam ne da koo da ko def pour pour sëlëm ñi nga xam ne moom mooy sénégalais. lu mam noonu laa ko jàngatee su ma defee suma analyse rek noonu laa ko jàngatee def na naa teg lii carrément su ma wàccee kenn du topp sama njaboot kenn du topp sama rax kenn du topp kenn parce que bu jëlee ñooñu teg tax xam ne ñooñu moom am naa yàqin ne 2024 ñoo fi toog bu ñu fi dee gi bàyyee te bu leen bu fi tegee te moom leen dooleel du bu mu wàccee du kenn ku ñuy jàpp si ay famille Sidi euh, mu mel ne que yow ak Sénégal yi bëri bokk ngeen xel bokk ngeen xalaat euh, parce que Sénégal li fi nekk ay leader politique yaa Ousmane Sonko gis nga ko mu ñëw première première élection mu ñëw def résultat mu def jël troisième ah gis nga fi ñeneen mouvement yeneen yeneen yeneen parti yoo xam si donc ñi ngi fi ay parti yu mag yoo xam si ni tey ñi ngi nas pour jël réew mi tey nga bëgg yow cité réew mi que Karim Wade Idrissa Seck affaire yooyu est que nekkul ne euh, loolu du du du cadre yàpp Sénégal yi wala. Sénégal yi kay moom yëpp sénégalais yi weesu ko parce que dëggalu ma la paa bi waxoon naa ko dinaa ko waxaat Ablaye Wade Macky Sall Idi Karim musuñoo réeroo te duñ musu réeroo ba mukk ñoom ñooñu duñu réeroo ba mukk te duñ ko def ba mukk moo tax ma la carrément moom waaw nu ñëwee askan bi du nànk mais loolu moom li mooy wax rek gëm naa ne comme mouvement bi muy ànd teewal suñu gox bu commencé réussir si dëkk bi am naa yaakaar ne jeunes yu bari dinañ ñëw wala jeunes yu bëri doon taxaw lu mel noonu te bu dee dañoo xeex comme ni ñu ni ñuy xeexee loolu dina fi jógee bi soobee yàlla nañ jàppate bu baax xam ne day baax rek. noo gisee euh, ëllëgu ëllëgu ëllëgu président mag Sall ci ci bopp réew. non ëllëgu président mag sàll moom nu ma ko gisee si lii mu teg nii mooy ne carrément jàmm ak salaam lay jël si li mu teg nii man si mënu ko jàngatee ku nekk ak sa gis-gis nag. mais fi mu toll nii moom defar raaj ci mbaxalam ba mu seddu guy parce que lépp lu koy tàngal gëm naa ne du ko du ko def ñi jël ñii ñuy teg leen si nii si wetam am naa yaakaar ne moo xam 2024 day ñëw opposé wu wala day ñëw lu muy def mais gëm naa ne moom bu fi wàccee jàmm ak salaam lay wàcce bu fi jógee tamit si ak salaam rek la fiy jógee loolu moom gëm naa ko. day wax ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar jàmm juñ nga séntu yàlla na ko suñu borom def ci biir réew mi rawat na bitim réew rawat na suñu voisins yi nga xam si ne ay Guinée ay Mali yi ñu wër su région bi wax dëgg yàlla ñoom it di ñaan yàlla suñu borom dafa jàmm ndax wax ne chaque jour ah, euh, yaa ñu jiite ah, moo gën a wóor maa di jiite waaw te réew mi loolu la soxla donc may wax ne amul violence amul dara bu élection ñëwee kenn ku nekk yor nga sa carte nga dugg si urne yi vatel ki nga xam si ni moom nga jàpp ne moo moo dal sam xel nga def ko après mu jeex kenn ku nekk ñibbi sa kër buñ bu ngoonee 6 heures ñu wax résultat yi que le meilleur gagne euh, mais tey euh, Sidi euh, fi may point bi may jeexalee rek mooy tey kii bi nu ma ko mën a waxee Ousmane Sonko nga gis ni actuellement nii cool yi tendance yi bokk na si actuellement nii potentiel adversaire ki nga xam ne moom mooy Macky Sall Euh, yow nu noonu nga noonu nga gisee walla non loolu moom moom noonu laa ko gisee ma kii Sonko. te ko damay dafa nekk sama référence tuuti rek parce que nu mu nee bëreet jug rek nekk troisième man noonu laa waxee ne moom ma nekk suma référence. donte que nag demaguma si benn xëccoo wala demaguma si lenn mais dama judd barki de moo njaay ñu bëri topp sama ginnaaw li jiitu may judd. ma juddu ñu bëri gën a ñëwaat parce que li ma la wax léegi rek am na plus de cent personnes yoo xam ne enregistré nañ leen yoo xam ne actuellement nii dañoo war am carte d'identité te sama jigéen Yacine mu ma siy dimbali bu baax a baax taxaw na pour ñoo ñëpp am kayit ñëpp am carte moo tax ma ne gëm naa ne bu 2021 wee di neen gis leneen ak leneen bu soobee yàlla te Sonko tamit lu mel noonu la taxaw moo tax loolu laa ne jàngat naa ko si moom te am naa na jàppate ba parce que jeune la te am na ambition am na gëm-gëm loolu moom naw naa ko si moom téewa naa ko si bu baax a baax si li mu waneegul nag xaw ma nag ëllëg ndax politique dafa doy waar xaw ma nag ëllëg ban nan nag nan lay génnee mais actuellement nii ni mu jël moom moom rafetlu naa ko sopp naa ko si man Sidi Fall président ànd teewal suñu gox. Hmm. xool naa ci yow béykat ni euh, coordonnateur département bu Pikine bu Pastef euh, recevoir na la. coordonnateur département Pikine. waaw ah, mun a. <laughs> <gasps> musuma recevoir. parce que parce que ni nga da koy dëggal. <laughs> dama wax rek te yàlla tax dama wax rek te yàlla tax mais musuma recevoir coordinateur bi sax xaw ma ko seen siège laa xam te romb jàll laa fa am siège bi dinaa romb jàll rek laa fa am romb jàll mais sax xaw ma ko yàlla mi itam xam ne loolu <laughs> dama wax rek li nga xam ne carrément gis naa ko si moom mu nekk lu nice te man. noonu la ma yàlla bindee su ma gisee scénique lu nice wala lu rafet ak lu mënta doon rek dama ko si roy parce que damaa bëgg lu baax nag. Mhm. émission coowal politique li ñu mën ci waxtu xaabaabal nan waaye ki ñu invité muy jeune nekk xale boo xam si ni euh, macha allah ji euh, de caare kaw euh, commencé ko jox bopp xaw ma nag fu mu jaar la gars yi te man man sii man nangul wax fu mu jëlee xaar te xam ne ku ne xam ne actuellement ne politique nit ñi xaalis la ñuy toppee la ñu lañ ciy duggee parce que dañoo wax dañoo war a lekk dañoo war naan ak yeneen ak yeneen yoo xam ne donc loolu la ñu fi suñu ay maam jàngal ba tey nii moom lañ fi moom la fi suñu bàyyi def ba tey ñu nit ñi nga xam si ni ñoom ñoom lañ fi nekk ba tey ñoom lañ fi kon sii di xam naa xam naa du ñàkk beneen xañ na ah, ma gën a gëstuwaat xool bu ko defee lu leer ñu wax ne fii la Sidy Fall ñii ñoo nekk si ginnaawam ak yu noonu ah, mais coowal politique euh, li ñu ci wax du jeex na bàyyi la nga tàggoo euh, ak mbokk internet yi. waaw tàggoo ak mbokk internet bi yëpp di di wax ne le lii mooy ànd teewal suñu gox. <laughs> waa SBT seen basa ngi ñëw. lii mooy ànd teewal suñu gox waaw nekk mouvement boo xam ne barki démboo njaay la judd le 30 août dafa gun activité yoo xam ne yi mu ko defee yu ci ayib la muy première bi mooy wàcc kaamil comme ni ma ko xëyee sama biir wax bu njëkk deuxième bi mooy set setalu koñ ba ñëpp rafetlu ko jiite caare kaw yëpp ñëpp lu ko def man damay dégg message yoo xam ne sax moo koy woon suma jot yaakaar mu ko si woon ñoo xam ne ñu woon kii Sidi Fall nga dajeeg ñoom ñu ne woon ak pourtant kee moo nekk président entité wala suñu gox ñu ñoo doon seetal école bërki démb ñu rafetlu ko lool macha allah di wax ne la kenn kenn newul sama ginnaaw <laughs> encore une kenn newul sama ginnaaw lu dul samay jeunes donc ñoo may jàppale muy waa entité wala suñu gox. lim nag da ngay juum mais damay cité ñi nga xam ne ñooy leader yi nga xam ne ñoo ma gën a dooleel di Yacine Diouf Khadim Mbaye alsan Ndiaye maam Thierno Bey ak Kulu njaay sama conseil <laughs> ñooñu ñoo ma dooleel ak yattu mi nga xam ne mooy président des jeunes te te def acte bu rafet léegi wax naa la ko muy ñu amu woon carte si gox bi yëpp ñu ngi leen di lijjantil kayit te su ma jigéen Yacine moo koy def muy jigéen muy ndaw mouvement bi daal li ma la bëgg la xamal muy prochaine fois booy ñëw dama leen di woo ñoom ñëpp ñu toog ñu jàkkaar yow nga xam ne wedd gis bokk si bu soobee yàlla loolu laa am si li ma lay wax ne la bientôt boo ñëwaatee di gis leneen ak leneen te dama ñëw fii suma bureau daral la fi parce que bëgg naa li ñuy wax maa yow mu nekk lu sérieux lu concret parce que su ma demoon suufee rek xam naa ne mbooloo mi tam ñu yàqu si tàccul ak jàppal bàyyil moo tax tey ma ne naa ñëw fii suma bureau ñu waxtaanee ko fi di am kontaan nag bu wér si li nga bàyyi si ité yëpp ñëw teewal ma tey na yow laa bëgg ñu ànd waxtaan suma émission si am kontaane bu baax a baax ak di la ñaane yàlla yow tamit macha allah ku nekk xam na ne doo laaj mukk la ba nit ne kii li mu laaj débordé na wala demee ne nii ak nii loolu nag moom cant la mais nag dañ lay bàyyi ak yàlla mi am pay rek yàlla na yàlla fay si barke yonent bi Ah, Sidi euh, Fall ah, ñu gën koo xam nag ci Sidi bu Serigne Babacar Sy xañ na étiquette politique bi euh, moo tax ñu taxaw foofu waaye Sidi bu Serigne Babacar Sy macha allah ñëpp xam nañ ko euh, di la wax ne la ñun SBT xamul kii xamul kee li mu xam rek koo xam si ni jeune nga wala koo mën di doon nekk ci teewal li nga xam ne moom mooy sa gox incha allah foo mën di nekk boo wootee bu dee émission coowal politique wala n'importe émission boo xam si ni SBT mi ngi koy def incha allah SBT dafay pour ñi nga xam moom mooy population bi jege leen SBT moom mi ngi noonu leen wax ne coowal politique la woon dig daje ak beneen invité ci SBT Média jërë ngeen jëf